bu ñu dooma ay prix Nobel maa ngi ñaari académie man rek maa fay nit ku ñuul académie international de droit comparé da ngay xam sa droit réew ba pare xam droit réew yi ci des man rek maa fa rek Stockholm la nekk académie internationale des avocats plaidants moo di International Academy of Trial Lawyers mooy académie nga xam ne américain ñoo fa nekk am na Amérique li muy bare nit ku ñuul yëpp ña fa nekk ñu ñuul barewuñu man rek maa fa nekk africain boo demee ci internet nga xool ko kon nag bu ma yàlla mayee loolu yëpp sama tur dem ba daj àddina bi ba dellu si damay xam loolu lu ko indi lu tax yow yàlla defal la ko wala kii wala kële man la ko defal man nag damaa xam li ma may loolu sama baay moo ma jàpp sama loxo ma nekk étudiant mu ne ma xam nga booba temps Sénégal dafa politique mënuma man de mënuma laa def président la république loolu moo di rek bëggoon na ko ma nekk ko mënuma waaye danaa teg ci yoon wi boo ko wàcculee rek di nga ci egg daal di jàpp sama xel yóbbu ma ci kër sëriñ Mourou Mamou Mbacké ci Daaru Salaam keroog ba ma ñëwee may sume suma daal mën a ma bu sumi su sumi sa daal solal solal solal sol ndigal la ma sol sama daal mu ne ma toogal sama ma toog ñuy waxtaan ma di ko déglu ci laa binde la doctrine économique di du mouridisme keroog ba ma demee donc si loolu lay dellu si ak sama benn xaritu américain boo xam ne économiste la ñu dem ci sëñ Falilou ñu to waxtaan mu ne sa xarit bi moom man réew la jóge ma ne kii américain la mu ne a ah, ñoom murit lañu ma traduire ko ma ne ko ah sëñ Fallou de a dit que vous murit ma wax ni ay tubaab yi fi ñëwoon barki dem ñu wax ba tudd élection ma ne man de bu fekkoonte ni dama bëgg ndigal ñi ma jaar ñëpp danañu wax ndigal pour man waaye kenn amul ci kenn ku ma suul ndigal Senghor ndigal ko fi bàyyi moo ko fi teg moo ko fi bàyyi sëñ Fallou bi mu ne nee naan jàkk Senghor dëgg la général de Gaulle ànd Bernard Cornut-Gentille gouverneur général ñëw ci commune euh, bi ñuy bëgg a woote communauté mu ne ko waaw situation bi nag mbaa danañu woote mu ne ko eh fii benn kaddu rek moo fi am khalife général des mourides bu ne woote na rek ñëpp woote ba ko sëñ Falilu wax ñu moo am quatre vingt dafa ko jaaxal konte nag mouridisme doole la joo ni eh, lu baax rek lay ndigal nanu ko jàpp bu baax dama gis nag ci internet bi lu ma xaw a metti mooy xale yi nga xam ni du ñu def li sëriñ bi bëgg dafa am lu ñu gëm te mën nanoo liggéey euh, doomu buuru Màkka fekk booba sax ñu ngi ci Masaalikul Jinaan ñu ngi koy liggéey ba mu sore mu ne ma lan nga bëgg ma ne ko ngoon ngeen may ma jàkk parce que dama ko buur bi mu ne ma Abdou Aziz mu raw moo yor yooyu ma dem di waxtaan ak moom mu ne ma way man maa yor ma ne ko yow naka nga mën a dem di tabax jàkk Argentine nga jaar ci kaw senegal di dem foofu te ñooñu duñu jullit nga tëb Sénégal nu mu mën a amee mu ne man kenn ñëwul wax